Colle dafa teggi natam jox jëkkëram Colle dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a réew a réew a réew a réew wax waay ah dama sant gisoo daal yi weer laa def weer ndawal taan def ñaari weer yu différent tas yaakaaru weer def sama bu moof ah daal def jiin boo xamante ni noir la daal lii sa yenn sama sant dégg nga sa yoon ne fi laa wax yoon na ma xaas nga bañ di jéem di ma jéem a nax daal sa naa moom koo tooga nii sa sa gel bi yow léegi danga may trompé de le motif <laughs> yaa ngi may trompé kontaan naa si te man amoon naa far mais musuma trompé léegi man xam naa dinaa la jéem a trompé ay 22 heures waaw nii laa def damaa ma déggu ma sama téléphone daa fay daa fay lan nga wax ah, ma yéen dangaa bëgg ay affaire yu sumee ko torop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am naa karaw <laughs> am naa karaw de maa ngi nii am naa nopp aussi am naa bañ léegi boo bëggee ma sumee ko ma wala sama eh. sama sama léegi. cappaacoli Без, безумовно, безумовно, Мур. Zerali, Zutarapa. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasul. Ilaha bi penga. Ay waay sama doom jee ngi jaay boppam ci internet bi. Du si internet si téléphone portable. Yow fa si nga naan ma si eh xoolal su may wax nga la ilaha yow nit nga. Yaa yàqal nga. Cappaculi li teel cappaculi lii lan la dama bëgg may riir. Cappaculi li la dese téye ko nga sàmm sa bopp bul yàq sa bopp ci internet bi ñii nobu ñu kenn dañuy fen. xoolal yaa ngay waxal dina yow ma damay ñapp nga yàq sama àdduna ma yàq sa àdduna deme sa baay tey lay yàlla nii laa la man sama àdduna do jàng ba yow di jaay kii yàq eh, si suuf ma dinaa ko toogal si laa la wax la ilaha di jaay kii yàq na sama àdduna di jaay kii yàq na sama àdduna bis ni ki tey kii amatuma ci moom yaakaar kii man lay man lay xañ laa baanu fajar <laughs> ni nga boo xamee kii la laa mu koy def ci néeg bi doomu gëm barke yu ne ci fene wóolaak fekk muy def di waxante xale bu góor bu nekk na naan ko dalaa simmi ko yaram mu neen jox la sama bopp yaa ko def rajax li sa ndey defa ah. voilà man maa ko def dëgg li muy wax nga ba pare laaj nga ma kii laaj na ma man laaj naa sama bopp xarit laaj nañ ma li ma def léegi da ngeen may déglu ku si nekk ma tontu la dégg nga waa ji man na moom jàgg nañ yaa ngi ma xool ay deux non deux mois lañ def deux non non deux jours. deux jours lañ def deux de temps lañ def ak trente minutes. ndeysaan mu bëgg ma ah fonk ma daal maanaam daal léegi tey nag ñuy def appel vidéo. léegi yàq na boppam. déedéet yàq ma sama bopp sama man man kay li ma jaaxal man damay gént wala man lan moo ma dal man laa xamul. man sax damay yow rek lu la dal. Ah, xanaa yëgul barki dem boo njaay xale jigéen yi doon def lu bon ci appartement yi. waxal li nan def ak ñoom waxal li yoon def ak ñoom ci réew mi xanaa xanaa xanaa ko. ah jàpp ràpp te duma ca kaso ba. laa laa laa. dama dëgg dama lay wax ñaar dama nda. man duma jur doom ma yab dama lay wax rek dëgg la wéroo. Mm-hmm. comprendre nan dëgg la wéroo. waaw jaay sa bopp duñ ko nangu de. ndax dégg nga moom moom duñ ko nangu. lépp mun nañ ko waaye nag am na sama kër gi ma ni kilifa laa ci koñ bi am na lu duma ko nangu ci kër gi man mi kilifa laa dëgg dama lay wax rek toog man magum jëmm nga du ma mag de man may xale bu ndaw man wubal muy wax te bëgg naa man sa baay bu ma dee wax nga yub sa gémmiñ dama boo ma neet dama ni dellu ca dagan na dellu ca naa nay xale yu tëj prison dama ni man may nitu kaso man ñu may tëj kaso nga naa ma naa la xamal yaar de xamal ma ñett am na lu may seet am na lu may rus moo tax sama loxo léeg-léeg du boobu du ma bëgg mu lay dal. seet mel ni ku rëy dama ma lay wax rek. dama lay wax rek xamadi nga. réew nga. dof naa dof nga. ëppal naa doppooral nga ëppal nga. waaye li ma lay wax mooy. waa ji ngay woowanteel moom ci réew mi la ne wala bitim réew la ne. waaw mun naa ne waaju waaju consommé consommé extérieur sama mbëggeel ak moom exportation le plus export plus importation ça donne bénéfice c' normal il faut moom bénéfice léegi li tax ma def loolu xam nga la la xam nga tabaski bi mi ngi ñëw waa ji mu ne ma boo nangoo samay condition dinaa la def nga nekk jigéen boo xamante da nga am xaalis man euh, dina ma jox xar xarul laadum dina ma jox xaalis bu bari ay 1 million 500 mille yooyu neen aussi dina ma jox gaz ne dina ma yónnee cheveux naturel téléphone doo fi xaalis dama lay wax lu doo fi jees neer mm-hmm. koñ bii kilifa laa fi ñëpp dañ maa jox cër respecté la ma mm-hmm. man nag du ma dem ba police mbaa gendarmerie di fukki sama kër gi nu naan kat kat ja doo doo doom ja doom ja doom ja moom moo xale jigéen nañu jàppayam waxatuma dara ci internet te nag li naa la xamal yaar ah gis nga jigéen ñu sikk nañu waaye góor ñeet kenn gën leen a sikk ñoo leen di di leen góor ñeet ana ponkalum góor nooy téye téléphone tiim xale bu jigéen naan ko futtigul ma xool la rawatina eh, ku mel ni ku mel ni ku mel ni surtout eh, nag koo xam ne wérul non non waxuma ay wax futeeku la daf ma ne jël sa téléphone nga def ko nii nga def appel vidéo nga war ma sa cër nga war ma sa yaram léegi ma sama sama karaw bi laa commencé ma ne ko sama karaw baa ngi nii sama bët bi sama baqat bi après ba daal di sumeeku fi may dem ba sumeeku rek sama yaay bett ma jël fësee yow tamit fësee sa bopp man nga xam fësee sama yaay yàq lépp xale bi ëmb validé moo ma di ëmb validé gi yàq nañ ko li ma la wax bu boobaa gi ëmb validé si na waa ndokk boo si na validé ëmb validé ngay wax yente validé waa ndokk baax na bu boobaa nag li jaay ma ni Collé kii jug ca moom nag daa jot sëkk ak barke tiim sa ndey ak sa baay lu la neex nga wax leen di leen saagaak léeg-léeg sax nga dóor leen jug ci moom nag te ba pare mu ne nag day wanteer boppam eh, man li ma dagale yëpp eh, man pare naa ca ak li ma la dagale yëpp ah, ah, ka Collé dimbali mu yi ma bul waxati waxam man xam naa na may def léegi xam naa li day bu ma sànni ma ni bu bu ab problème nga bëgg maa bàyyi xam naa ni may def papa xool picc yi di naaw fii papa xool picc yi yar picc la picc amatu wala Sénégal daa mel daa mel ni mooy le premier pays piccineur de laay war naa changé nag ko sa bopp ni ma mel nii est-ce que papa war naa changé de papa dinaa changé dinaa changé allo waa seen koko sama papa laa doon yow gawsu man yow yow man man man man damay bëgg a lu ma dal gawsu xanaa xontatoo xar yi newoon naa la xar yi na ni lekk xar yaa ngi nii wow ko man waxuma sax sama ñaari xar yi waaye xarum xarum jàmbur mii bin ma koy indil ci kër gi am nga ne toll woon nii xoolal xam tey xar mi ni mu mi ngi nii nag nga mu wow kongu nii xoolal xar mi lu mu toll ah tons xar bi maa ngi koy xont li nga may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek xar rek tëb mooy lan xamoo luy tëb xar mi li nga may si moom mais xar bi saa yu bëggee changé nga yóbbu ko mu tiire ji xar bi tëb rek lay def li muy def boo ko doon def doo am yaram li muy lan tiire rek lay def tëb rek lay def mooy li nga koy def loo noonu. jëm ma li mu wax dëgg la xar bi li mu li muy def yow boo ko defoon kon yow ngeer nga bu yàgg si tëb yi ngay bàyyi golo ñaaw bàjjalo nduru li ngay yar xarit si yow la ñuy copier del joxe exemple bu baax ba fët see waay